xaaj bu njëkk bi ci ñeenti xaaj yi taalibe yi ñu jëkk tuddee gaayi kirist ci nettali bi weesu gis nañu naka la korney ak waa këram ak ay xaritam doone ñi jëkk nangu yeesu te duñu yawut te dinañu waxtaan ci mbirum màggug mbooloom ñi jëkk gëm ak ni ñu leen fitnaale wax jilaw ba agsi ci ñi gëm ci réewum yude ne ñi dul yawut nangu nañu yeesu bi Pierre demee Yerusalem ñi gëm te farataal xaraf di werante ak moom ñu ne Pierre warul dugg ci kër ñi xaraful di lekk ak ñoom noonu Pierre wax leen ne bi mu nekkee ci dëkku yoppe di fa ñaan dafa am lu ko fa feeñu mu wax leen ne gis na fa lu mel ni am malaan mu wàcce asamaan malaan mi ëmb ay rab yuy doxe ñeenti tànk yuy raam ak ay picc noonu mu dégg baat bu ne ko mu rey leen te lekk leen waaye Pierre bañ ne mësul lekk lu daganul baat bi jóge asamaan ne ko lu yàlla selal bu ko araamal jëf ya saar fukk ak benn aaya juróom-ñeent loolu am na ñetti yoon noonu ñetti góor ñëw ci kër ga seet ko xel mu sell mi sant Pierre mu ànd ak ñoom Pierre ànd ak ñoom dem kër Corneille Pierre séddoo xabaar bu baax bi ak Corneille ak waa kër Corneille ak ay xaritam xel mu sell mi wàcc ci ñoom ñu tàmbali wax ay làkk yu ñu déggul woon tey màggal yàlla Pierre mujj ne leen bi loolu amee ma fàttaliku li borom bi wax ne Yaxya ci ndox la doon sóobee waaye yéen des na leen sóob ci xel mu sell mi gannaaw nag yàlla jagleel na leen may gi mu ñu mayoon bi ñu gëmee Yeesu Kirist borom bi man may kan bay tebbi atteb yàlla jëf ya saar fukk benn aaya fukk ak ak aaya fukk ak bi ñu déggee loolu amuñu dara lu ñu caateeg ñu daldi màggal yàlla ne yàlla nag may na ñu dul yawut it ñu tuub seeni bakaar ba am dund gu wóor gi jëf ya saar fukk ak benn aaya fukk juróom ñett léegi malaaj laaj leen benn naka la yawut yu bare ci mbooloom ñi gëm jàppe woon dul woon yawut bëggoon nañu ñu xaraf tey topp aaday yawut yi ngir mën a mucc jafe woon na ci ay yawut ñu wacc seen aada yooyu yawut yi ci aada yooyu lañu fekk baax ñaar ñan lañu gën a bare ci yawut yi dawe woon yerusalem doon yëgal xabaar bu baax bi seeni mbokki yawut lañu doon yëgal xabaar bu baax bi ñett lan moo xew bi ay yawut yuy làkk grek waare ci antios ci ñu dul yawut ñu bare ci ñu dul yawut gëm nañu borom bi yeesu foofu ci antiyos lañu jëkk woowee taalibe yi gaayi kirist yi ñeent mucc gi ñëw ci ñu dul yawut lan lay tekki loolu mooy tekki ne nit ñépp mën nañu mucc day tekk itam ne mucc ajuwul ci xaraf ak topp yoon musa mu ngi tekk itam ne sart diine wi jëm ci lu dagan ak lu daganul yàlla far na ko